wax su dofee wax bu dofee nopp yi koy déglu mooy nite Bougane Gueye pion Macky Sall la dafa àndul sax ñi ñi koy wax sax gëmuñu ko mais malheureusement Sénégal léegi nit day fen ba gëm ay fenam et je crois qu'il faut être méchant pour le dire moi je suis un gentleman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 bu Bougane Gueye booy lim ñaari opposant yu Macky Sall tey ci réew mi doo lim ñaar génne woo ma ci te génne ma ci mënut nekk lépp lu ma war a def maa ngi koy def lépp lu ma war a taxawee maa ngi koy taxawee tey ñoom opposition bi yëpp laa wax na boo leen boolee ñoom ñëpp ñi ci opposition bi yëpp ku ci nekk liñ ko teg ci fitna ak li mu ñàkk ci xaalis man li ma ñàkk moo ko et puis nag nañu waxante dëgg bu ñu waxantee dëgg suñu borom sax dafay wax ne maa ngi wax ak borom xel yi ulil baat borom xel yi laay waxal man man Bougane féete woon ak Macky Sall moo gën a yomb ci man dinaa taxaw heure bi di wax ak yéen fii moi je suis propriétaire d'un groupe de presse depuis 2008 est-ce que da ngeen ma mës a dégg kañ ngeen ma commencé dégg deux mille dix huit lañ ma commencé dégg deux mille dix neuf ba fi may wax ak yow nii amatuma compte bancaire sama compte yëpp tëj nañ ko mosuma koo wax. kon man ñàkk naa dinaa ñàkk fayda ànd ak nit muy tëj samay compte dinaa ànd ak nit ñàkk fayda muy tëj suma télé. yéen média yi wax leen ma ban média moo ci gën a virulent de médias wax leen ma ko vous êtes des journalistes man dinaa yor suma groupe de presse. jàppale nit ba pare ñu ko fay saaga waaye waaye ñàkk yow ma fayda noonu nag yéen tamit eh, yéen yéen ñii yéen a ma gën a xam yéen journaliste am na fulla fayda joo xam ne bu ma jógoon di jàppale nit dama koy jàppale ku nekk teg ci bëtam mais dama leen wax encore une fois lenn dong moo ma yitteel Sénégal moo ma man buggaan xeexuma pour suma njaboot man buggaan xeexuma pour su may soxna man buggaan xeexuma pour kenn ku may yéen seen njaboot yii li ma bëgg mooy Sénégal nit ku nekk bu xiifee lekk bu feebaree faju ñaqam mën koo jariñ li ñu indi ci Sénégal mooy xaalis boo ko doo ko li doo ko lijjantiwul xaalis dañu koy kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti man dama gëm fighting xaalis dañ koy liggéey kenn du ko lijjanti te ba ñu indee lijjanti ba ñu indee lijjanti xaalis ci Sénégal ba léegi la Sénégal tos nit day liggéey di torox nit di ñaq di walaakaana nit di njublang di mos ñuy jàkkaarloog moom loolu laa bëgg mu dañ Sénégal te li koy dindi mooy xeex corruption li koy dindi mooy fexe ba cherté de la vie bi ñu jàkkaarlool ñu dindi ko fi nañuy wax nit lu am solo nañuy wax nit ñi fulla fayda waaye waxu ay bugaan euh, pion wu Macky la loolu ñiy kàcc-kàcc mën nañ cee continuer bu fekkee ne dañoo yaakaar ne man maa mun a tax ñoom ñi ñuy waxal wala ñi leen tax a jóg mun naa fànq seen wërsëg wala seen muur man doxew ma noonu man buggaan Gueye dama jàpp ne képp koo xam ne war naa mun a soppi Sénégal faw ñu taxaw jàppaloo liggéeyandoo pour lii fi ne te ñu xam ne lii fi ne jafe-jafe askan wi la xam ne kii fi nekk muy Macky Sall li mu teg askan wi dañ ko war a teggi kenn du ko teggi lu may gor yu baax yi mhm. la solution l'alternative c'est la grande coalition Gëm sa Bopp je vous